tey day firndeel lu bari ci sama diggante ak Balla Gaye nit ñi wax na lu ne ci àdduna mais lu sëñ tubaa samp moo gën a wóor lu ne ci àdduna te sëñ tubaa moo nu boole ci lu bari ni xamul woon yàgg na sax mais nag lii yëpp dañuy wan ne rek sëñ tubaa la kon Sénégal mooy li ma waxoon rek keroog ñoo bokk ndey bokk baay sport sport la mais bu jeexee jeex na luñ fi nag tey mooy safar liggéey sëriñ tubaa ndax ñun alalu sëñ Touba ñun bu ñu amoon ay milliards barke sëñ Touba ñu ko ñun sëñ Touba rek ko ñor ndax si àdduna man amatuma dara lu may wax ci àdduna ndax sëñ Touba taral na ma ci àdduna kon boog ma dara lu des sama dund amatul dara lu may wax ci àdduna du waxu sëriñ tubaa ak sama sëriñ moom Mouhamadou Abim Mbacke ak liggéeyu sëriñ Touba loolu laa ñaan yàlla ba keroog may ñibbi tubaa ci sama bàmmeel. même gis ñëw indil ko ay tranga waa non loolu dépassé na loolu man ak Omar lii suñu yëf la. jarul ay teranga yeb li Omar moy man man may Omar ndax man danaka tay lu xamna Omar moy dem def lu muy def kon li yeb alal sëñ Touba la li ñun dépassé nu foofu mak Omar parce que bo nu fekke ni tok ni ñu dundé nga xamni ñun Serigne Touba rek kanu bolé ñun. japp nga ko ngir Serigne bi te doo ko la. ba yow ma barke Serigne Modou mbake man sëñ Touba lay té te man sëñ Touba moo am sëñ Touba la kon góoma kenn ku lu Serigne Touba dañuy ñaan rek li ñuy def ni safar bi ak ñi si japp ak ñep yalla Serigne Touba defal leen xewal te ñun sëñ Tuubaa na yaakaar te sëñ Tuubaa kenn du ko yaakaar dem tànki gannaaw tànki kanam rek na ñuy barke sëñ Tuubaa